ñaareelu xaaj bi ci juróom benn yi bi yaxya juddoo ñu teg ci juróom benn weer yéesu juddu ab janq moo ko jur ci dëkku betleyem janq bi ab sëtu ibrahima la woon akit it buur daawuda ni ko yonent yi yégle woon jibril malaaka mi dafa feeñu maryaama mi doon janq bu waroon a dooni jabaru yusufa mu ne ko xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale biy juddu dinañu ko wooye ku sell ki doomu yàlla ji gannaaw loolu am malaaka feeñu yusufa ci ab gént malaaka mi ne yusufa xale bi maryaama ëmb jógewul ci góor waaye kéemaanu yàlla la dina tudd yéesu ndaxte dina musal xeet yi ci seeni bàkkaar gannaaw loolu yusufa jël maryaama jabar waaye tëddul ak moom ba xale bi juddu buur ba joxe ndigal ne na ku nekk bindu ji ci sa dëkku maam noonu yusufa ak maryaama jóge nasaret ci galile dem betleyem ci dëkku daawuda ndaxte yusufa sëtu daawuda la loolu matal na li yonent yi wax ne musalkat bi betleyem lay juddoo léegi ma laaj leen ñett naka la maryaama mi doon jànq ëmbee ba jur yéesu ëmb na ci kàttanu xel mu sell mi ñeent lan la yonent wax te juddu yéesu matal ko ab jànq ko jur mu ngi juddoo ci betleyem